Monsieur le Président, Madame le ministre, Monsieur les ministres, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. À l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnés au nom des intérêts supérieurs de la nation avide de cohésion. C'est une pratique de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit en commission. Et je rappelle que c'est en avant Jésus-Christ qu'on a le premier décret de l'amnistie à Athènes. Lors de la Révolution française de 1789, Une loi d'amnistie avait absous les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en Allemagne ont été amnistiés. Quelqu'un me disait que oui, ils n'ont pas été jugés. Je l'ai rappelé en me disant qu'il a parlé du tribunal de Nuremberg. C'est après qu'on a amnistié les nazis, oui. Mais après la révolution de 1789, c'est en plein procès qu'on a voté une loi d'amnistie. et interroger les lois d'amnistie qui ont été votées ici au Sénégal. Qu'est-ce qui est plus dangereux d'être un séparatiste, n'est rebelle Et pourtant, on a voté une loi d'amnistie ici. Où, étiez-vous Vous savez, c'est pour vous dire que pour avancer, les nations ont besoin de pardonner pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et c'est dans cette indispensable trajectoire historique que se situe la grande et salutaire décision de monsieur le président de la République son excellence Macky Sall sama gaay waa ex-Pastef ñépp xam nañ ne duñ samay xarit faraluma leen bugguma ngeen gañe dara ci réew mais aujourd'hui il faut ñu waxante dëgg dëgg gi xam nga mooy lan tout à l'heure quelqu'un l'a di tey dégg naa victime yi dégg naa les familles dégg naa ñi nga xam ne rey nañ leen mu am ay avocats yu bari ñoo xam ne nag seen i avocats lañ bi yu bees tax bees pul yu ñu dajee ci paket mais jamais mosuma leen gis ñu taxaw fii nekk ñu rey ki dem kaso wala yóbbul nañ ko añ wala yóbbul nañ ko reer ñun musuñu koo wax parce que amuñu ci et on l'assume certains de l'ex-Pastef c'est vrai am na ay bandits ay brigands loolu moom xam naa ne am na ci mais aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité la vérité c'est quoi suñu waxantee dëgg mooy ñii bëgguñu compétition parce que dañoo ragal ñun ku ñu xam-xam ne bëgg bëri bañ bëri lii bañ mooy Ousmane Sonko bokk élection lii bañ mooy Karim bokk élection parce que xam nañ ne ñooñu bu ñu bokkee élection de pour cent sax duñ ko am xam nga wax ji lan la affaire bu doo affaire u élection on est dans un pays qui a besoin du pardon le président de la République son excellence Macky Sall a dit que man li ma soxal ci réew mi mooy defuma un troisième mandat yokkuma sama mandat J'ai réalisé énormément de choses dans ce pays. J'ai travaillé à ce que les Sénégalais mën a nekk benn fexe naa këri diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi fu ci nekk ñu am foo xam ne dinañ fa jaamoo yàlla ci wàllu jàngu mi ak ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ li ma soxla nag mooy réew mu dal réew moo xam ne nit ñi dañoo dajaloo réew moo xam ne dañoo réconcilier wu ba nga xamante nii su ma demee Sénégal dinaa ko bàyyi ci dal ba ki nga xam ne moom mooy ñëw madame la ministre l'avait dit parce que monsieur le président mooy góor googu nga xam ne ku ko yëngal du guuse donc je pense que li mu soxla mooy kii ñëw ak ku mu mënti doon na doon koo xamante ni dina fekk réew mu dal réew moo xam ne dañoo dajaloo nekk benn pour que Sénégal mën a jëm ci kanam réalisation yi mu fi na def mën a dem ci kanam je vous remercie